السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من لا إدريس أجاي بريزدان كوسابو كوسابو لمي كوسابو مم كورا لبو خمني دونو جوك نير لب لو جم جوالو أجمك ناخ نيكو سوس اك نيتيني اي اكتر لنو ci walu acc kon suma beugé teunk rek dama nan courel la bo xamni dal ci walu acc mak ci lañuy yëngu euh, الحمد لله رب العالمين موبيليزاسيون بي تاي خمغا لو 3 مارس لانسي وون نانيو تي داكارو نجاي تي تيوايو مينيستر دو لا سانتي كوروك مو يبال فا مدام داو مو ريبريزانتي كو دكتور داو اك ديليغي جينيرال ñu lancé won ni nak kosa po fasiyene na jog bok ci ñinga xamni daanu xex mbass mi ndax laal na ñepp waye daf ñu laal ñun ndax mille dem ñu 2020 demuñu Màkka 2019 fii ñu taxaw di wax allahu alam yàlla moo xam ndax dinañu dem am duñu dem te li sabab loolu ba lii am mooy mbas mi kon kosaapo nii war nañu jóg taxaw bokk ci ñi koy xeex li koy xeex nag na ma ko waxe woon rek mooy ñaan saraxe ak tuub ak déglu digle kër docteur digle déglu digle kër docteur yooyu nag moo waraloon tey ñu dikk Thiès ba du jógee dakaar keroog tey ñu ñëw cees fas yéene seeti ay daara yóbbu leen ay ndimbal ngir ñu dolli ñaan ndax addu'a u silaaxul mumin wëlbati ko itam soññu leen fàttali leen waxtaan ak ñoom ci li fi ne nan lañuy def ba mën cee mucc buñ fa jógee itam dem ay juma tey daanu jullee ay juma fa tabaarakallaahu giseeg imaam yi giseeg ña fa ne yóbbu leen ñoom itam ay masque yóbbu fa ay kaamil. waxtaan ak ñoom itam pour ñu fàttali nit ñi dem si gaaru ceer yi incha allahu taala dem ci marché yi euh, loolu daal moom la ñu fas def nii loolu ñuy dem yëpp nag pour fàttali nit ñi rek te bu lu mel nii mësaan a am mbas balaa xel dal dañuy trouver vaccin heure bu ñu ko trouver rek xel yi commencé dal fi mu ne yàlla dogal nañ ñu trouver vaccin euh, boroom xam-xam yi ndax yàlla dañuy fas alu ahla dikri in daal laa taalamuun laaj leen ñu xam su ngeen xamul ñu xamal leen sunu borom xam-xamu réew yi nag euh, gëstu nañu ba indil ñu yoo xam ne moom la ñuy jëfandikoo pour ñu dolli soññu nit ñi euh, dolli dalal xelu nit ñi pour ñu dem vacciné wu ndax moo la ci mën a génn ndax màkk gi nu jëm incha allahu taala bu demee ba am balaa nit a dem di nga vacciné wu man mii taxaw di wax vacciné wu naa alhamdulilah groupe bii mën naa ne ñëpp vacciné wu nañ ah, ak ñeneen kon. ñu xamal nit ñi rek bu benn bi ma mën a wax rek mooy ndem Makka dina am kenn du dem te vacciné wu ñu xam ne nag suñu njiitu réew yitte bi mu def ba ba indi li mu fi indi ci wàllu vaccin yi wëlbatiku tàllal di wax di dox ngir sénégalais yëpp jot si ah kon nag ñu it war nañoo góorgóorlu ba bu yegsee si ñun ñu jëfandikoo ko te la sëñ Babacar daan wax kilifa du gàggantikoo ci mbedd waaw déglu ñu nu war a déglu mooy borom xam-xam yi am na loolu boo ko bëggee xam. déglul ña sa jàng tey boo bëggee laaj ci wàllu gàmmu ah ñëwal laaj fa tabaarakallaahu gàmmukat yi booy laaj ci wàllu médecine demal laaj ña ko jàngi woon booy laaj leneen laajil loolu kon daal loolu daal laaj ci doon ubbee incha allahu taala moo waral tey ñu taxaw nii ak ci jàppale nag ministère de la santé mi nga xam ne gunge nañu jàppale nañu wéttali nañu incha allah ci liggéey bi ak ñi nga xam ne ñëpp ñoom la ñu seqal saapo ñi ñëw ak ñi ñëwul fa tabaarakallaahu tey daal ñoo fi teew fas yéene defi liggéey boobu incha allahu taala. waaw kilifa diine yi xam nga ñooy sunu kilifa ndax ñu nekk ci COSAPO ñëpp ay njaboot lañu te ñoon wañ nan ñu yoon al isharatu tak fi li man aqala Cheikh Seydi Aboubacar ma tudd rek ibnu alhaaji Mansour xalif général de Tidiane gis ngeen taxawaay matuwaay yi mu jël bi mbas bi dooree ba tey ku mel na Serigne Mountakha xalif général de Mouride gis ngeen li mu defati itam barki démb yooyu yëpp pour soññee pour wane nit ñi ni nañu dem góorgóorlu ak ñoom amul lenn lu ñu yëkkati te du ñoom la ñu waxal ñoonu ñaanal dolli ñu teg ñu ci yoon fàttali ñu bu baax a baax ci li nga xam ne moom la ñu liggéey kon kilifa diine ba ci Thiès gii nga xam ne tey fi lañ koy déparé xalifa bi bay alxaaji Muniru Njëgan di xalifa alaaji Ahmad Bara Njëgan moom itam kadaalika noonu ak mboolem xulafaay ak sunu mag yi nga xam ne nag nu jiitu woon ci màkk ko mel ne ñoon alxaaji Doudou Ndiaye Presta ak rahmatullahi alayhi alaaji Moustapha Sall yàlla yàlla yeesal yërmandeem ñoo ñëpp ñu ngi ñëw àndandoog ñun ci liggéey bi nga xam ni tey ñu ngi ànd di ko def incha allahu taala ak ñun Babacar Diouf Mbaye Singer ci fi nga xam ni fi lañu ñu tey ci résidence te mu bokkaat ci ñun bokkaat ci ak gi fa tabarakallahu yàlla yàlla dolli jàppale jàppale suñu doom alxaaji maxtaar mi géré kër gi euh, ñaanal leen suñu borom daal yàlla yàlla dolli sutura dolli jàppale leen ndax ko sàppoo moom résidence këram la incha allahu taala waaw mbas mi tolof tolof yi foo ko takk tolof tolof yi ñu indil laa tuaddu wala tuxsa mënu mënuma ko lim mënuma ko takk benn rek bi ma la ci mën a jox mooy teg nañu tolof tolof bi gën a rëy mooy tiyaaba yim ñu xaj 2020 demuñu ca raw du yonent bi 2020 te mbas mi la defuñu tawaaful ifaada moo nu ko yóbbi demuñu arafaat moo nu ko yóbbi demuñu musdalifa moo nu ko yóbbi ñu munaa moo nu ko yóbbi sànniwuñu jamratul aqaba moo nu ko yóbbi kon tolof tolof yim ñu teg bi ci gën a ndaw mooy euh, xaalis bi chiffre d'affaires yi wàcc boobooy bu ndaw bi waaye bi bi mooy bu ndaw bi nga xam ne moom la jàpp waaye bi ma lay wax mooy bi gën a rëy moom mooy tiyaaba yem ñu xaj kaaba ga ñu daan xool bu ñu ñibbisee ku xool suñu kanam yàlla jéggal la ndax téeméeri yi ak ñaar fukk fukkay wàcc ci kaaba ki par bés loolu fay wàcc nag ñiy tawaaf ñiy naafila ñiy xool ñoo ko moom 2020 amuñu ko te deux vingt 2021 bi yalla xam yalla ko yalla yombal waaye ñu ngi ci loxo man may euh, Mamadou Lamine Badji man conseiller technique ci cabinet ministre de la santé et de l'action sociale euh, lolu dina ci content trop de ci tontu parce que kuy xex mbass am ay acteur yu nek ci diiné yenu la xex bi dang ci sante yalla trop waaye bala may gëna mëno tontu ci question bi dama bëgg Eh, gërëm association bi COSA eh, COSAPO di leen sant di leen gërëm si ànd bi ñu ànd depuis le 3 mars depuis keroog bi ministre de la santé et de l' action sociale Abdoulaye Diouf Sarr jox ñu ay instruction ne nañ leen jàppale dañ leen topp dañ leen tabagal bay fa leen bëgg a yóbbu information bi ñu mën ko fa yóbbu looloo waral tey ma ñëw fekk si région médicale bu Thiès bi madame représenté Binta Gueye représenté docteur bi parce que nekk fi pour jëlal leen donc lépp loo xam ne yéen dañ ko soxla si mbiru technicité lépp loo xam ne dañ ko soxla si xam-xamu médecine ñu mun leen toppatoo ànd ak yéen ba lépp loo leen soxla si mission bi ñu mën ko def ak jàmm ak salaam. Je m'appelle Mohamed Mansour Mbaye, euh, vice-président de la COSAPO. Euh, que peut-on retenir de la mobilisation, la mobilisation d'aujourd'hui Je vais commencer par, par rappeler un peu que cette action d'aujourd'hui s'inscrit dans, dans le, cadre d'un plan d'action global de la COSAPO qu'on avait défini lors de notre journée de lancement du 3 mars euh, dernier à Dakar. Euh, on avait prévu lors de cette journée de lancement dans notre programme, à partir de Dakar, d'effectuer également des tournées dans les régions, dont la région de Thiès en premier lieu. Ensuite, nous irons également dans les régions de Durbel et Touba. Nous irons ensuite dans la région de Kaolac et ensuite la région de Saint-Louis. Et notre président disait d'ailleurs que dans, notre programme futur, nous comptons sillonner l'ensemble des 14 régions du Sénégal, Inch'Allah. Donc cette action d'aujourd'hui entre dans ce cadre-là. Et nous avons commencé par Thiès. Et voilà, donc nous sommes euh, en train de démarrer la, journée de Thiès, la journée de lancement de Thiès, avec deux jours d'action au niveau des mosquées, des dahas au niveau également des gares routières et des marchés. En gros, c'est ça le programme de nos deux jours de, du programme de caisse qui commence à partir de ce matin. Voilà, c'est une question assez, assez délicate. Je vais d'abord préciser d'abord que COSAPO est constitué par les acteurs du pèlerinage. Contrairement aux autres associations de, de pèlerinage, COSAPO a élargi sa base à, au niveau de tous les acteurs du pèlerinage. Qui dit acteur du pèlerinage dit d'abord le, le voyagiste privé, qui convoient les pèlerins, mais également le pèlerin lui-même. Sans pèlerin, personne ne, ne, penserait aller au pèlerinage parmi nous. Ensuite, les autres acteurs auxiliaires. Les, restaurateurs qui vont au pèlerinage avec nous, les tailleurs qui, qui nous coudent nos, nos, armales et consorts là quand on va à la Mecque, et tous les acteurs qui tournent autour, qui gravitent autour du pèlerinage. Donc tous ces acteurs-là sont aujourd'hui membres de la donc c'est fondamental. Et comme le président l'a dit tout à l'heure, il est clair que la Covid, dès qu'il est arrivé en 2019, a fondamentalement euh, joué hein, sur l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Nous n'avons pas été à la Mecque en 2020. Depuis 2019, donc, nous ne sommes pas allés à la, la Mecque. Et effectivement, euh, ça entrave nos, activités. Euh, jusqu'à présent. Ce que nous souhaitons et nous prions justement pour ça, c'est qu'en 2021 au moins, que les choses aillent mieux, que Allah le, Tout-Puissant euh, nous préserve de ce virus-là et donc euh, qu'on puisse aller à la Mecque tranquillement comme, on le faisait d'habitude. Le programme d'action, nos principales cibles sont d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, hein, nous allons descendre dans les, au niveau des, des Nous sommes quand même des, associations constituées principalement hein, d'imams, de, de prédicateurs islamiques, de, maîtres coraniques, de Dara, etc. Nous allons commencer par nous-mêmes, comme on dit. Le président lui-même est maître coranique de Dara et il est imam. Donc nous allons dans les, visiter les Dara d'abord, euh, essayer de sensibiliser les serines Dara, ou les maîtres coraniques, comme, on les appelle en français, euh, sur la pandémie, sur les mesures à prendre avec l'aide du ministère de la Santé. Je ne dois pas oublier d'ailleurs que nous sommes en partenariat avec le ministère de la Santé qui, sont qui est là représentée par deux docteurs, deux médecins et qui doivent nous accompagner justement pour gérer les aspects techniques et les informations techniques concernant donc ce, virus qui est la pandémie. la délégation au Ok, la délégation au pèlerinage, vous avez raison de, le poser. Euh, le président l'a dit tantôt, la, délégation au pèlerinage nous a beaucoup accompagnés lors de la journée de lancement. Il nous a même accompagnés financièrement et matériellement. Les est n'ont pas le temps de nous accompagner durant toute la tournée, mais nous ont donné tous leurs conseils, tous leurs conseils et tout leur appui moral et financier pour qu'on puisse réussir effectivement cette tournée-là. Et après la tournée, nous allons retourner chez le délégué général pèlerinage, notre frère Abdelaziz Kébé, pour lui rendre compte de tout ce qu'on a fait et des résultats qu'on a eus pendant cette tournée-là.